may jug di joobe mbër mi di sa ñaan bismil mujibi man ji li joobe may jug di joobe mbër mi di sa ngir xam ko war naa te am ko doy naa ngir ma yërëy naa xam leen sëriñ na ngeen xéréw loo te teewlu ci lii ma jublu mooy tagg sëñ ñaan ku yàlla te jox ko ak nañ di ko màggal te moo di seen ñaan ngëneel yàlla lu wàcce dunya jox ko mayam yaan moom di seen ku teel mokkal xuraan ti giijil xam-xam te sellal moom sëriñ ku teel a mokkal xuraan giijal xam-xam sellal moom sëriñ ñaan jàngale ak yar la def baam cër am diine am ngor moom yi di sëñ ñaan ku teel a nangul Seex jébbal ko ay mbiram jël na yaa di sëñ ñaan gëm baraamam jaamu boromam raw nay moromam jaajëf sëriñ ñaan gëm na jaamu boromam raw nay moromam jaajëf sëriñ ñaan Bàmba la wóoloo te la doyloo ba xëy gërëm loo moom Serigne Ñaan moo fu Bamba jox ko xolam baaya si gàddu yat baaya maanaam Serigne Ñaan fu Bamba jox ko baaya si gàddu yat baaya maanaam Serigne Ñaan joxe hadiya la làqe yaa ak may yu yaa iski sëriñ ñaar doonoon jàmbaar ba fu masa jaar jëfalu jarkaar yi naa sëriñ ñaar doonoon jàmbaar ba fu masa jaar jëfalu jarkaar yi naa sëriñ ñaar yàlla gërëm ko yonent gërëm ko bàmba gërëm ko kenn du sa yàlla gërëm ko yonent gërëm ko seex bàmba gërëm ko kenn du sa daa doon borom baax tey wane baax bay xotti ay baax Tabaski Sëriñ Ñaan naa doon borom bay xotti ay baax iski Sëriñ Ñaan ga moo tax ya daa muy xam lañuy wax jaajëf Sëriñ Ñaan ga moo tax ya daa muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ ñaan léeg-léeg mu gis lool diggam ba teewul baatin ba tuutul moom yi di sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan baba ko fagul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom mi di sëñ ñaan baba ko fagul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom mi di sëñ ñaan mooy xeetilee tay faj aajo yi kay àggale is géy ñi sopp sëñ ñaan waaju ko jébbal boppam te dëggal bur yàlla mu ko ngir sëriñ waaju ko jébbal boppam te dëggal bur yàlla mu ko ngir sëriñ ñaan ku dégg sax aw turam di jëm kaw te mucc nag faw ngir sëriñ ñaan li yàlla dagaanoon seex bam doon jafal geram leen sun maam sëriñ ñaan seex baara def ci moom lu biral te jug naa ngir xam le sëñ ñaan Seex Baara def na ci moom lu jar na biral te jug naa ngir xam le sëñ ñaan dakku liggéeyal dëggal te sellal te woo ko kantal nañ roy sëriñ ñaan Seex Bamba ko moo Seex Bamba Seex Bamba moo ko digal mu def ko sangam tere ko moom mii moom mii di sëñ ñaan Cheikh Bamba ko digal mu def ko sangam tere ko moom mii moom mii di sëñ ñaan bismil mujibi man diiri juubi may jug di joobe mbër mii di sëñ ñaan بسم المجيب may jug di joobe mbër di sa ngir xam ko war naa te am ngir ma yërëy xam leen sëriñ na ngeen xiraw loo te teew ci lii ma jublu mooy tagg sëñ ñaan ku yàlla màggal te jox ko ëk nañ di ko màggal te moo di sëñ ñaan ngëneel yàlla lu wàcce dunya jox ko mayam ya moom di sëñ ñaan ku teela mokkal xuraan tigi xam-xam te sellal moom sëriñ ñaan ku teel mokkal xuraan te giijal xam-xam te sellal moom sëriñ ñaan jàngale ak yar la def baam cër am diine am ngor moom yi di sëñ ñaan ku teel nangul Seex Bamba jébbal ko ay mbiram jëndam yaa di seen ñaan gëm na boromam jaamu boromam raw nay moromam jaajëf sëriñ ñaan jaamu boromam raw nay moromam jaajëf sëriñ ñaan te moom la doy loo ba xëy gërëm moom sëriñ ñaan moo sopp Bàmba jox ko xolam baaya xëy gàddu yan baaya maanaam sëriñ ñaan moo sopp Bàmba jox ko baaya xëy gàddu yan baaya maanaam sëriñ ñaan joxey hadiya la làqe ndam yaa ak may yu yaa iski sëriñ doonoon jàmbaar ba fu masa jaar jëfalu jarkaar yim naa sëriñ doonoon jàmbaar ba fu masa jaar jëf fa du jar kaar yéem naa sëriñ ñaan yàlla gërëm ko yoneen gërëm ko bamba gërëm ko kenn du sa ñaan yàlla gërëm ko yoneen gërëm ko seex bamba gërëm ko kenn du sa ñaan doon borom baax tey wane xar baax bay xotti ay baax iski sëriñ naa doon borom baax tey wane xar baax bay xotti ay baax iski sëriñ xar baax ga moo tax njanaaw daa wax muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ xar baa moo tax njanaaw ya wax muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ ñaan léeg-léeg mu gis lool diggam ba teewul baatin ba tuutul moom mii di sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan ko fagul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom mii di sëñ ñaan ko fagul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom yi di sëñ ñaan mooy xeetilee tay faj aajo yi kay àggale iskiy ñi sopp sëñ ñaan raw nay moroomam jaajëf sëriñ ñaan gëm na boroomam jaamu boroomam raw nay moroomam jaajëf sëriñ ñaan bamba te moom la doy loo ba xëy gërëm moom sëriñ ñaan moo sopp bamba jox ko xolam baya xëy gàddu yan baya Joko ko xolam ba mana gàddu yan ba maanaam sëriñ ñaan hadiya la iski sëriñ Donon jamar, jàmbaar ba fu masa jaar doonoon jàmbaar ba fu ma sa jaayaar jëf fa lu jarkaar yéem naa sëriñaan yàlla gërëm ko yoneen gërëm ko bamba gërëm ko kenn du sëñaan yàlla gërëm ko yoneen gërëm ko seex bamba gërëm ko kenn du sëñ ñaan daa doon borom baax tey wane xar bay xotti ay baax iski sëriñ ñaan doon borom baax tey wane xar bay xotti ay baax iski sëriñ ñaan ga moo tax njanaaw ya daa muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ ñaan xar baax ga moo tax njanaaw daa wax muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ ñaan léeg-léeg mu gis lool diggam ba teewul baatin ba tuutul moom mii di sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan baba ko fagul ci ak pal ba muy joxe pal moom mii di sëñ ñaan bàmbaa ko fàggul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom mii di sëñ ñaan mooy xettilee tey faj aajo yi kay àggale is kiy ñi sopp sëñ ñaan waaju ko jébbal boppam te dëggal bur yàlla muccal ko ngir sëriñ ñaan waaju ku jébbal boppam te dëggal bur yàlla muccal ko ngir sëriñ ñaan ku dégg sax aw turam di jëm kaw te mucc nag faw ngir sëriñ ñaan li yàlla dagaanoon seet bamba leen a bàyyi ngeen wéet ginnaaw yàlla waa Makka ak Madina sañu ñoo bàyyi yonante bi ñuy wéet ci mbir nu ne sañulu leen a bàyyi ngeen di wéet ci mbir lu ngeen nekk danañ ko ànd gi su nand bii nag yàlla nañ ko sëñ baara te nam ko bëggee tey ak ëllëg mu amee ko noonu moom su amee li mu bëgg rek noonu ni am am lu noonu nag bu mu bëgg bu mu wut nan bàyyee suñu bopp sëñ bi moom li mu bëgg ci noonu nag yàlla na ko suñu borom defal sant nañ bu baax bu baax te woo ko kantal nañ roy sëriñ ñaan Cheikh Bamba ba moo Cheikh Bamba Cheikh Bamba moo ko digal mu def ko sangam tere ko moom mii moom mii di sëñ ñaan Cheikh Bamba ko digal mu def ko sangam 阿拉。